gaay sénégalais yi coono la ñuy daj fu ñuy jëndee billet fajar teel la ñuy dem maanaam duñ mën a am billet c'est très difficile billet yi génn mais pour ñu gis billet c'est tout un problème fii ci Yamoussoukro xam nga lancé woon naa message que ni match ci Sénégal Côte d'Ivoire même bu supporters yi mënul équilibré cinquante cinquante au moins mu doon soixante quarante mu xaw a déséquilibré tuuti mais laalaa li ñu gis nii vraiment vraiment képp ku gis vidéo bi na nga ko partagé sunu njiit yi jiite wàllu sport bi ñu jël téeméer teel a jóg ci loolu jël lijjant bi xam nga ñoom na lañ ko mën a lijjantee woo Sénégalais benn place départagé leen jox leen seen i ñun ñëpp ñu bokk fu ñu nekk ñun ñëpp supporters yëpp yëpp bàyyiwuma kenn ñu bokk fu ñu nekk àndandoo may doole équipe nationale Sénégal moo xam ultra yi moo xam ñii ñëw uniquement pour ñëw support Sénégal moo xam supporters yi ñu indi fii ak ñoom ñëpp. mu ngi noone dafa am ñoo xam ne dañoo jóge Sénégal ñëw Côte d'Ivoire dépenser ay millions pour uniquement supporter Lions yi mais ñëw ba fii te amoo billet moog zéro yam moog zéro yam da nga perte sa xaalis si zéro c'est vrai passion bi da lay yóbbu mais tamit mënoon nga toog sa kër may ko doole mais ñëw ba fii mënoo dugg ci stade bi. loolu nañ ko teel a si s'il vous plaît gars yi max de partage gars yi fajar teel lañ dem ci fondation bi euh, au fait bu wàññi mënuñoo mën a sax gis billet c'est vraiment ba la ko population sénégalaise di expliquer ñi nekk fii non mais danga naan la laa la la si si sa continue vraiment te leen a jug ci billet yi yi ñi fi nekk ñëpp mën a am bi c'est vrai rëyul mais tamit ñi nga xam ne war na noo mën a dugg ci stade bi pare ñu jox leen billet ñu ñëw dugg supporter seen Lion ñëpp pare nañ toog nañ yore seen xaalis ne bu ñu jaayee billet ñu jënd man mii njëkkee ci man man mii njëkkee ci man buñ ma proposé woon bii buñ ma proposé ma ñëw pour mën a doo dooleel samay lion jar na ko yàlla yàlla may ndam ne ñëpp ne amin ci commentaire yi jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaajëf <laughs> balance la tàllal làmp yi na balance la tàllal làmp yi na balance la tàllal làmp yi na balance la tàllal làmp yi gagné de waaw ko dugal waaye. Sarr yaa gagné ok. non mu ngi nii mu ngi nii. Eh, Seex boo ko si Seex boo ko si génnal. Yes! C'est bon Les gars jàmbaar dugalal photo bi dugalal photo bi waaw ñun kese Instagram lañ dugal wala dafa kër waay waaw gerte gi mel ni no prix waay no rek a dugal Cheikhou de bu tàggee Cheikhou de dafa perte bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg xaaral xaaral eh laay yow rek laay topp. laay di wax. mais waa ji tàng na. mais waa ji tàng na. police. Carapaz, s'il te plaît, s'il te plaît. Ñaanco. Ido jaajëf Sadio Mané Sadio Sadio Sadio Ñanjo Mané Mané Mané Al Nassr Kapi s'il te plaît s'il te plaît Mais pas pas viens me dropper ça Pape le Marseille Pape drop-moi ça Abdou gagné de Sarr yaa gagné ok. dégg nga. jàmbaar dugalal photo bi. dugalal photo bi waaw ñun kese. Instagram lañ koy dugal. Eh, waaw gerte gi mel ni. non prix waay. loolu ko waay lan teel a ñëw waaw. Eh, eh, bu bu dugal Cheikhou de bu bu tàggee Cheikhou de dafa perte. waaw ah, bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg. Ah, depuis 2010 am na doon bàyyi. ah. depuis 2010. déggu ma am na doon bàyyi 2010. léegi kon benn crépé la ñuy njëkk a dégg à part avant yow. yéen a ngi mu invitation indi oto non non càq càq moom indi fii mais Amadou moo waroon gis mais dafa dafa dafa dafa dafa mu ngi ñëw waaw waaw maa ngi xool xaama xaal situation bi ba xam comment dirais-je damay dem fële ou pas wala ba xam damay dem fële bu may demul fële ma def la suñu avant rek